père jëmm. xanaa koor ngeen a jàpp yaa ngi nelaw rek. aw ba jàmm. jàmm la kay. te xew. dama la doon laaj li ma doon wax keroog fan nga ci tool. ni wax fan. keroog néew ma fii da nga maa bëgg. sama jëkkër ju soof ji xam moo fi ñëwoon sànq di arrangé gii te man dellu ma waxuma ci dara ndax instant bi maa ngi belliwaat def jongo ma poñ seetuma ay mbiskit ak meew bi kenn xamul. Hmm. waaw. ngay dank di belli. Mhm. diw bi di wàcc ah, sa kanam sa kanam dëliis nga del si waat sa xol neex ne nii danga toll sa étape nekk damaa ne ci forme nag baax na dañu bàyyi ba ndogu ba pare ñu dégg nga hmm. waaw dégg nga waaw tontu léegi nag yow moom nag père nag dangaa mujjee bari tiital de waxal rek non déedéet dama bëgg nga bàyyi bu añ bu ndogu ba pare bu ndogoo ñu toog ci waxtaan waxtaan daal comme nañ defoon keroog ma la koy wax xam nga ñoo toog maa yow ma wax la wax ji ma wax lépp waxtaan ci yow dégg nga. naa ne sama problème bi rek la ko ci yow. miss ay dil ñu xobaay jàngal na ma àdduna ba fi nekk kenn mënu maa dugal lépp lu may xañ kumba mii lu ma koy jox ma ko gënal lépp lu ma koy xañ rek lu ma koy jox moom ma gënal ñii ay saytaane pire lañu ah dañ ma tegal dil gis naa yi jur dara yoon mënul ci man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 lan moo ma nar a dal nii dellu kër bàcc moom du sax lu may xalaat waaye day jaay bari pexe <laughs> dina xam ne njoos na xale bu mën a daw te vitesse yi maam yëpp laay utiliser lii de non faaw ma am solution waa kay nag woote yàlla gën bu nit waa Père Niokho waaw ah. ci loolu gis nga de lii de def yow ah sa war baax na waa te xaa waroo tey bañaa woor nga def sa souvenir ak sa bu baax man daa xamal la moom ma daal. Uh-huh. démb ci guddi maa tëdd gént gént goo xam ni. non lii moom faa nga fay ma ma wax la ko. non ah, man ay gént moom man xaw ma ci dara nag moom xaw ma ci dara. bii nag xolal day wute déggoo ma de bii yow laa gént. man mii. yow kay. Eh, eh, loo ma gént lu baalu baalu baax la. maag yow ñu nekk ci lu neex bëggante lu neex. ah, ah, ah <laughs> expression rejeté. rejeté ah rejeté rejeté. ko. ah loolu moom du may d'accord parce que aw na Fatou yaa ngi ci buum. Hmm. yow ba ma nga naa ma bu ko tas naa ak moom. Ah, loolu moom bu ci am benn problème. yàlla si xolal gént gi damaa bëgg ñu confirmer ko mu doon dëgg ñu bëggante lu neex lu rëy ci kër gi. yàlla nee na bu laa laa tax a bougé naa bu laal bul jege. sagam nag buum bi dagg na. duma koy aspecté. non du ma maa waxoon rejeté. aspertos tant l'amour. man man nag su ma su may l'amour ak yow bëgguma kenn di ma sifal. déedéet du am nekk def à la base sax taaj bi daal bu mu génn mais bi. footballu mu yow Inesa Achary Busquets Inesa Achary rek laa bëgg ku ci boole kenn ku ne yow man ak yow toi et moi. Hmm. te nag man sama bëgg la mu de. yow loo tëj ba lu ne xoolal ma fekk la ca dama koy fekk. man bëccëgu weer ko tax dama si ko waraale. def lu ma saf xanaa man ngay waxal. kon nag xoolal yaa ko tey ne bis ni ngi tey. Hmm. toi et moi. jeex na. nga ne lu bëgg laay defal est-ce que duma la ci mbay bee di. waaw dama woon waaye eh, dog naa dog naa. yaa dara lii dogul ko. <laughs> Eh, waaw jeex na kon nag li nga bëgg moom léegi c'est déjà là validé. Hmm. mën na yow dem kon jeex na. waaw jëmm na maa yow jëboon nañu. per jëmm yow ba ma kooku booloo ma ko sax ma ci nit ñi. kon nag la sooy bébu nii. merci dafa la neex maa ngi ci. non <coughs> na nga xam ni pexe du jeex pour man rek bàcc de. <laughs>